li di ci digg Touba la muy fi ci gar bi gis nga jaay ko to yamba yi gis nga ni ñi jaay ak ñi tox ak to drogue yek sàcc yek ñi gens ak ñepp a ngi fi gis nga len ni li mel na du Touba li nak lu mata jog la lu mata retet la fekke police ak gendarmerie ñi def seen dal li digënté mak jumaa ji yaakaar naa bu maté 2 km ci la yam xalé yu ndaw di gens aka def naka sudul nona gis nga len ni ba ci muta jakarta yi yu fi duggal li nga xam modi moo di yàmbaaje gis nga len ni fi ci marché gar bi la marché gar bi la gis ngeen ko ni li nak fekke police ak gendarmerie ñi def seen liggéey ci dëkk bi li mom lu fi mat jëlé marché bi nak bu fekke luñu wara toj la nañ ko toj bu dee lu ñu war dëkkee nañ ko dëkkee waaye lii dafa ñaaw ci biir tuubaa kon mu ngi noonu gis ngeen ko nii